génn mbër maa ngi noonu mbër maa ngi nii génn mbër maa ngi nii génn balaa mbër maa ngi nii champion baa ngi nii le roi est là barki Seexu Baay yaa Rabbi barki Baay ak Seex Ajaali Munzir Ñas waa pays bi Mame Baye pour mu seexee bagi baa ngi nii lépp mën man baa ngi nii lépp man maa ngay génn kanam woy bu yëpp woy juróom bu jigéen yaa njóoba man maa ngay génn man man man ngay man ngay man ngay ay ngay amin ya rabbil alamin allahumma amin amin ya rabbil alamin allahumma amin آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين Allahumma amin. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil kii waa kër Masdo kii yaram ah? yaram mbooloo bi dafa bari na ñëpp génn na ñëpp génn mbër mi du génnee nii yaram yaram mbër mi du génnee na ñëpp génn tout le monde na ñëpp génn mbëri mënul génn ci conditions yi na ñëpp génn tout le monde dort avant que Little sort yéen ñëpp ci biti mbëri du génn ci conditions yéen ñëpp ci biti tout le monde waaw maa ngi waajal nag ñu cumb kaayam nii na ñëpp génn alhamdulilahi rabbi alamin gis ma ko gis ma ko fay rabbi alamin ma ko. non man la ko tuddee de Niakharañ. bu Fass. Niakharañ loo cum cum cum Niakharañ loo. ah les de Sa Touba mbër mi yegsi de. mbër mi yegsi maa ngi nii de laay neex a faral dimanche waaye. Sa Touba mbër mu yegsi mbër mi yegsi na. mbër mi yegsi na de. ànd naag sponsor am mbër mi yegg na mbër mi ànd naag distingo mbër mi yegg na de mbër mi yegg na de mbër mi yegg si na de mbër mi yegg na de waaw mbër mbër mi yegg na fu mu bi laa daanee Ama Baldé ca wet ga ca flancos ba ca milieu bi laa daanee Boy Niang ca milieu bi laa daanee Ama tey tey incha allahu rabi waaw bu subaa maa ngi France mercredi maa ngi New York awaay awaay awaay awaay mon ami waay improd improd waay l'arrivée du roi des arènes le roi il est là ya ya ya prudence ya ya ya une prudence, prudence. Prudence, prudence, prudence. Il faut être vigilant dans la vie. Ça, c'est pas du blague. Vigilance. Ah, c'est le bien excellent. fekkee ne bagage yi dem bu fekkente na jaar ci buntu bi bu leen ko bu leen ko jéggil bu mu fekkente gaaw bu mu fekkente bu mu fekkente mu gaaw laat mu gaaw mu gaaw bu mu fekkente waaw bu mu fekkente na gaaw na gaaw bu mu fekkente laay mu gaaw bu mu fekkente Papis eh Baba Baba na ñëpp écarté bër bi doo ko wàcc bu jege

daa mën a ne non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon géré nañ nañu des ku moom oto boobu na dem xool ko monsieur Yacine